asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot à 10 heures jàpp 11 heures euh, ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal Amady Dieng nekk directeur général bu agence de construction des bâtiments et édifices publics ñu fas yéene waxtaane importance bi nga xamante ni agence bu ni mel am na ko lan moo ko tax a jóg wante tamit euh, loi yi ñu euh, voté yàggul dara jëm ci euh, code pénal ak code de procédure pénale mu jur coow lu bare bari avant ñu koy voté bi ñu ko voté te tamit après bi ñu ko voté ba léegi coow li bari na daañu ko waxtaane ak kile di Amady Dieng daañu waxtaane tamit di mosage bu général Jean-Baptiste Tine violence bi nga xamante ni mu am ci arène politique bi saa su ne ngeen gis ni ay nervi ñi ngi ciy am ak yeneeni ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaane ak di euh, docteur Amady Dieng ñu lay nuyu di la dalal jàmm. Euh, Sabine bonjour maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la félicité aussi. Euh, ñu ngi lay suivre ci émission bi yaakaar naa ne yaa ngi béy sa waar yaakaar naa ne vraiment c'est votre radio est en train de devenir une radio référence dans. le l'environnement euh, euh, télévisuel ou bien. radiophonique médiatique de du Sénégal. mais tey dama lay bousculer du ma la may dara. non non xam naa ko. je hmm? suis prêt parce que parce que déjà du ñu déggoo dama ne la euh, <laughs> président Macky Sall ñun ñooy ay euh, patron ah. ah nga ne yow loolu doo ci doo si d' accord. non non c'est-à-dire que la patron. dans le xam nga hmm. xam nga il faut éviter de dire parce que maye naa ko. waaw kon maay patron am xam nga da ngay maye mooy c'est une générosité mais aussi ki xam lu ko jiitu. mooy tànn. Hmm. boo tànnee nit bul yaakaar ne parce que yaa ko tànn rek yaa ko yore yaa ko moom déedéet te tànn bi. yow da dafa ànd ak dara ko tànn ne ko doxalal. waaw da lii lañ moo tax dafa ànd ak dara. non non du la du la nga bëgg. moo ma ne lii laa bëgg def nga ne ko waaw d'accord na. attention waxoo waxoo nii la bëgg. da nga hmm. ne dafa la dafa taxawal programme mu ne ma ne que man bu may joxe réew bi lii laay liggéey. waaw loolu la donc xam moom moo moo tànn d' abord. moo tànn lu mu lu mu bëgg def ak nu mu mën a doxalee. Mhm. nga nekk waaw. yow la. Mhm. nga jox ko donc bàyyil mu dawal yow mënoo nekk gannaaw. nga ne ko d'accord naa ak lu nga bëgg defal moom mooy taxaw di defaral nga ne mën ne du loolu non mais programme ba mu tëraloon ba askan wi ànd ak moom ñenn ci askan wi la majorité ba mu nekk njiitu réew ci loolu nekk programme boobu da ko da koo changé la muy doxalee instant askan wi bëgguñ ko jamais jamais jamais xam nga askan wi xam nga mais est que d'accord nga peuple sénégalais ñooy patron président Sall. après ñu continuer waxtaan bi ma d'accord loolu. lu tax d'accord ma si loolu parce que rapport entre président ak du problème patron problème euh, patron euh, kii subordonné non. c'est une question de relation de respect et de choix. c'est-à-dire dañ ko tànn xam nga bu ko tànnee nit. Mm. munoo wax ne man a la tànn teg la fii. mais luñ bëgg la war a def. non non du la ngeen bëgg lu leen luñ mu def. réew mi réew mi ku ko moom. réew mi askan wi yëpp moo ko moom te bokk. waaw kenn ci askan moo ñëw si yéen kenn ci 17 millions de Sénégalais da may dégg am na sens am na gëm am na am na kanam c'est-à-dire que nit boo bëggee un parti politique boo bëggee jël pouvoir da ngay proposer programme du sa nit du sa personne ngay proposé programme bii moo moo la la Sénégal yi wóolu. fal la la. Hmm. alors bu ñu la falee ba pare nag yow da ngay war da nga war a lépp ñoo xam ne mun la jàppale pour nga def lu nga wax nit ñi cest à wax bii moo di est-ce que lu ñu leen waxoon. Hmm. lu ñu leen waxoon danaa def lii danaa def lii lii fi laa bëgg yóbbu Sénégal lii laa bëgg liggéey Sénégal est def na ko defu ko loolu moom débat la loolu moom mooy loolu mooy waxtaan bi. Hmm. est moom bu ngeen ko doon wax ne lii baax na est-ce que lu mu bëgg parce que campagne nu ngeen ko nu mu nu mm-hmm. parce que président Macky Sall dafa tawal ñett ñett bànqaas boo xam ne boo ko xamul munoo xam lu muy def. Mm-hmm. dafa tawal d' abord benn vision benn gis-gis lan la bëggal Sénégal fan la bëgg yëgu Sénégal nan la bëgg Sénégal nuro dans euh, presque vingt cinq ah, ans. deux mu jeex de tey yóbbuwul fenn réew mi ah, si yow yaa ko wax. deux mandats léegi mu jeex man dans deux ans deuxième mandat jeex te yóbbuwul fenn maa ngi fii depuis Senghor. waaw opposé naa Senghor pendant dix ans. maa ngi fi avec def naa fi Abdoulaye Wade. Mhm. lu amoon temps xayma ko il a fait plus de cest à on peut estimer même su benn secteur jagleel secteur électricité. Mhm. il a multiplié presque par trois tout ce que Abdoulaye Wade à niveau Abdoulaye Wade xutuma Abdoulaye Abdou Diouf et Senghor donc wax ne deful dara loolu dafa yomb dafa yomb ci réew su dee defuloon dara fekk réew mi tas na bu yàgg. Macky Sall dafa ñëw corriger énormément de choses. Ah léegi nag mm. réew mi fu mu nekkoon dafa xóotoon. difficulté réew mi dafa bari woon te léegi ba léegi mu ngi fii waxuma ne pare na parewul peut-être sax deful xaaj bi mais nit boo ko denkee dara mu ne la man nii laa ko bëgg a doxalee da koy bàyyi mu doxal. Hmm. la sanction xam nga sanction léegi léegi 2022 ñëwee élection locale yi ak 2024 xam nga depuis yow Amady Dieng di nga xam ba xam. askan wi ñooy patron Macky Sall wala mooy patron askan wi. danañ ko xam loolu la ngeen doon wax en 2019. waaw 2019 bu ñëwee on va faire ceci 2015 Sénégalais yi du yenn kese yemul si yenn kese am na ñu xam ne am nañu bët di xool am na nañu euh, nopp di dëgg am nañu bët di gis. voilà donc loolu. Mhm. Euh, dafa dafa mel ni. Euh, nekkul leen ci Sénégal bu ngeen waxee ne Macky Sall di fundal ñun ñu nekk Sénégal nekk ci gox goxaan di dem ci Sénégal di ñëwaat. xam nañ ne Sénégal lu. am na lu def quand même mais mais mais kenn defagu defagu exceptionnel en tout cas. non je def yëpp c'est exceptionnel. <laughs> defagu fi exceptionnel. non mais moi je def. fii tout ce exceptionnel. Ah te boo buggee ñu dugg si mu wax lépp. Ah, après parce loolu mooy sama liggéey man. Ah? man loolu rek mooy sama liggéey. après dinañ si dugg <laughs> léegi docteur Hamady Dieng nga jiite Euh, agence nekk euh, directeur directeur Amady Dieng plutôt nga nekk jiite agence euh, des bâtiments et édifices publics yow tey ji importance su agence boobu lan moo ko tax a jóg exactement Zabir merci beaucoup yaakaar naa ne agence boobu 2011 lañ ko taxawal d'ailleurs ci régime Abdoulaye Wade mm-hmm. lañ ko taxawalee xam nga ci secteur bu ñu nekk secteur bâtiment secteur tabax Euh, benn direction générale des constructions la amoon. Mhm. te mu wéeru ci ministère de l'urbanisme. Mhm. foofu la nekkoon. Mhm. bon euh, soxla Sénégal nag bari. surtout avec l'arrivée de Ablaye euh, le président Ablaye Wade. soxla soxlam ak ci tabax ci tabax fànn fànn bu nekk parce que Sénégal nekkoon na ci situation moo xam ne infrastructure yi que ça soit des bâtiments que ça soit yoon yi. soxla nañu ñu ñu ñu ñu booster ko. parce que on on était dans le besoin. yeesalaat ko yeesalaat ko on voulait aller Euh, de notre pays. Mm-hmm. Euh, ñu taxawal euh, agence boobu xam nga agence particularité am c'est que dafa am autonomie administrative et autonomie financière donc am na beaucoup de liberté sañ-sañ def lu bari fekk du laajte kenn. Mm-hmm. alors donc loolu moo tax ñu taxawal pour liggéey bi gaaw d'abord pour ñu respecter délai yi. Mm-hmm. pour aussi matériel construction norme construction ñu war respecter ñu respecter. loolu moo tax tabax. Euh, euh, ngeen ñu teg agence bi ñuy teg agence bi en 2011. mais bâtiment et édifice public lan lañ ci mën a dégg. la maanaam lan ngeen ciblé. le bâtiment et édifice public c'est-à-dire que c'est tous les bâtiments de l'administration et les édifices de l'administration les immeubles. Mhm. les bâtiments administratifs. Euh, tout cela c'est dans les universités. Mhm. dans les écoles dans l'administration c'est-à-dire que ministère daal lu mu war a tabax daal pour jégal ko agent pour ñu mun si liggéey recevoir service bu nekk service public. nga xam ne nii dañ ci ñëw di régler seen soxla ñu ñoo ko war ñun ñun ñun loolu mooy suñu mission. tabax yéen sphère Diamniadio yéen a ko tabax wala tabaxu leen ko. bon alors sphère ci sa dafa bokk ci exception ñu tudd exception. Mhm. c'est-à-dire que nguur gi dafa contracté benn contrat avec un un un un entrepreneur extérieur. Mhm. fekk bi aussi nekk mu ne éventuellement mun na contracter avec un entrepreneur extérieur defar liggéey bi parce que en vérité agence bi mënul yéenu. tabax Sénégal donc yow loolu liggéeyu. waaw léegi am na keneen ki moo ki ñeneen ñoo ko liggéey. waaw patrimoine bâti ko. building administratif ku ko yeesal building administratif duggoon nañ ci mais bu ñu demee ba ci biir gars jox ko keneen. donc loolu mais loolu lan moo ko waral. bon alors Amady Dia <laughs> expliqué ñu. munuñ la sas. liggéey bu amee ni solo di rocc yi gën a am importance di ko jox ñeneen bàyyi la. non am na am na yeneen yu am importance yu ñu liggéey aussi. bi nga toogee ba léegi la la non man du ma toogee ba léegi mun naa wax ne. am na yu ñuy am na yu bees yu ñu ma jox bu ñu tabax mais yu si bëri yu ma fekkoon te am difficulté. yan mooy lan mooy feuille de route bi bi nga ñëwee ba léegi. waaw lan nga def lan la ñu la sas. alors feuille de route bi moo di agence bi bu ma ñëwee dafa amoon ay jafe-jafe. Mhm. donc man sama première mission moo di euh, taxawalaat agence bi tegaat ko si yoon. tegaat si yoon d' abord ci fonctionnement bi. Mhm. Euh, ak gestion globale gestion de façon gestion bi de façon globale yorin bi yorin bi ensuite tegaat ko si yoon jëlaat chantier yoo xam ne dañu amoon difficulté. Euh, régler régler seen contentieux lu lu jafe woon yëpp ma ma ma jéem ko régler pour kon jëlaat liggéey bi continuer alors loolu la ñu def yaakaar naa ne tey. Euh, ay problèmes financiers la problème ah, euh, financier wala détournement de non non non y' a pas de détournement y' a aucun détournement. y' a aucun détournement c'est un problème de management. management et un problème de disponibilité financière. yooyu nag management bi moom ça dépend de ku ku ji ku jiite agence bi. Mhm. ak ñu fa liggéey. Mhm. mais problème financier bi ça dépend de l' état. vous savez euh, tu la dit tout à l'heure euh, euh, nous avons une un problème au Sénégal mhm. c'est que ku nekk bëgg na tabax même su dee du sa liggéey mhm. loolu moo tax moo indi jé jé yu bëri euh, boo xoolee sax dangay dem ministère de l'intérieur fan la nekkoon man ma j'étais le directeur des constructions au ministère de l'intérieur mm -hmm. or boo gisee ministère de l'intérieur lu fa nekk vraiment euh, man technicien yu ma amoon mhm. yoo xam ne dañu doon liggéey ak man mënuñu tabax yenn tabax yi parce que yoru yu ma technicien yu ma yu amu woon benn ingénieur parce que même ingénieur bu fa nekkoon mën na ko indi woon mhm. alors yeneen il y a aussi ministre de de de l'éducation nationale aujourd'hui am direction de construction ainsi ku nekk même daaj yi ñu xam ne amuñ benn direction de construction dañu bëgg tabax loolu mooy moo dul yoon mhm. am na ñu xam ne dañuy tabax te waruñu tabax te ñu fàttee réew nguur gi taxawal la benn agence boo xam ne amul beneen liggéey lu dul tabax am ay ingénieur am ay njumtukaay am ay expérience jaar-jaar ñu xam ne ñooñu la ñu war a te décret bu créé agence bi loolu la wax mu ne ministère yi nañu dénk seen programme de constitution agence bi agence bi moo leen war a taxawal. moo leen war a tabaxal. Mm-hmm. maintenant nag ci ci procédure bi agence bi ak ak seen responsable ñoo xam ne point focal ñoom ñoo am xarañ xarañ ci ci tabax ñooñu na war a ànd ak agence bi. tabax liggéey bi depuis la toutes les procédures appel d'offre bi a conception d'abord même bâtiment bi avec l'architecte mhm. appel d'offre bi jusqu'à la conception jusqu'à la livraison ñu jox seen càab ñoom ñu liggéey ci bâtiment mais loolu moo amul euh, loolu moo dese parce que tout simplement kon boobu ba léegi yow tabaxoo benn bâtiment si tabax naa ban ak ban ban wax ma je prends d'abord la cour des comptes mhm. dama fekk la cour des comptes c'est un bâtiment de euh, qui la République qui est où il Euh, c'est un bâtiment où le montant xaalis bi c'est presque neuf à dix milliards donc c'est des bâtiments gigantesques qu'on est en train de construire normalement fin fin du mois juillet on doit livrer Cour des comptes nous sommes au niveau de Sandiara les lycées techniques Sandiara qui tourne autour de six à sept milliards mmh. ah boobu tamit ñu si peut-être décembre on va le finir on l'a livré temps yi un chantier au niveau de Thiès c'est mmh. l'ISEP de Thiès alors donc ñun ñu ñu ngi tabax maintenant man quand je suis parce que je suis là depuis un an trois mois. Mm-hmm. donc euh, xam nga un chantier c'est un an c'est dix-huit mois. ainsi de mm-hmm. suite de suite. il y soogum ba si nga am na feuille de route koppar doy na. oui oui non non koppar yi doyul parce que ñun aussi la particularité de l'agence c'est que ñun du ñun ñooy gérer koppar mm-hmm. ñun euh, xam nga ci nguur budget yi dañ koy répartir au niveau des ministères et des institutions. yi. parce que par exemple ministère de l'enseignement supérieur bu bëggee ma tabaxal ko moom xaalis bi moo ko yoree dafa may ne lii la bëgg lii la bëgg lii laa bëgg ñu contacter benn architecte def plan bi euh, ñun ñu jël plan bi proposer leen ministère bi bu ñu valider ñu commencer les procédures appel d'offre bi mm-hmm. bu ñu demee nag ba ñu xam ne entreprise bi moo war a tabax te coût bi ma coût coût ouvrage bi li lay jar moom mu jël xaalis bi versé ko suñu compte dépôt mm-hmm. qui est logé à la direct à la à la chez l'agent comptable des grands travaux du président et qui est géré par le trésor donc nous on a fait on lu ñu lu ñu war lu ñuy def mooy liggéey bi bu bu antoo ñu defar les décomptes déposer ko euh, parce que même ci biir agence bi am nañu benn agent compte agent comptable. Mm. boo xam ne trésor moo ko yónni foofu. Mm. donc c'est-à-dire gens croient que ñu ni dañuy def li la c'est impossible de faire dans la République ce qu'on veut. affaire détournement de fonds yi ñoom seen. non non c'est pas possible. c'est impossible c'est des contournements tu contournes mais dans ko c'est pas possible. c'est pas possible. mais ngi détourné. mais je dis que ça c'est des c'est des contournements c'est des c'est des combines c'est des combinaisons c'est même des complicités mais logiquement tel que nu ñu tabaxee affaire te ensuite loo ko defee contrôle bi les les services de contrôle bu ñu ñëwee mais ils peuvent tout tout de suite voir parce que loo def da nga ko war a justifier loo def da nga ko war a justifier les états financiers tu les fais chaque année. et c'est validé par un conseil de surveillance alors donc euh, yaakaar naa ne l' état sénégalais yooyu il faut mu insister ci cest dire que nous sommes très bien organisés. c'est ah pas oui oui l' état parce que si gi nga nekk. non non non euh, non moi euh, c'est-à-dire Sénégal est l' état l' état à personne na appartient pas à à au pouvoir aujourd'hui n' appartient pas à ceux qui hier l' est impersonnel la république doit être impersonnelle. quand on la république elle doit être impersonnelle c'est pourquoi quand j'entends certains dire ñun ñun ñun ils n'ont rien compris les élections doivent être organisées dans le à fonction conformément au calendrier républicain ça n'appartient pas à l'opposition ça n'appartient pouvoir c'est l'État c'est la République donc il y a euh, boo ci duggee rek bëgg a jalgati c'est yaa ngi yàq réew mi mm-hmm. et loolu c'est ça qu'il faut éviter ce que xam ne ñun ñoo ko bokk ñoo ko bokk boo ko duggee rek da yàq c'est-à-dire que c'est c'est faire croire aux gens que nous sommes un, pays corrompu c'est de faire il s'adapte à ses à ses ah bu fekkee am na di nag loolu mooy le constat général. est-ce yow mën nga ko détournement ñëpp xam nañ ni. Afrique c'est de la fabulation c'est des Afrique li tax mënul dem wala Sénégal c'est des problèmes de détournement. jour nga gis fi nekk. rapport IGE ainsi de suite a il y a des choses. waaw des épingler ay ay ay il des choses qu'il faut ñu xam ne dañ ko war a defaraat. dañ ko war a xoolaat dañ ko war a xóotal pour gën a situer responsable je suis d'accord Euh, je ne dis pas que tout tout est tout tout est meilleur dans le meilleur des mondes c'est waxuma loolu. dama ne. Mhm. xam nga nit loo munta nekk ak loo loo munta xalaat sa réew lu nga moom da nga ko war a màggal. Mhm. ñun même ce qui est bon on duñu ko màggal. on est on pense que il faut parce que tout simplement on veut le pouvoir parce que tout simplement on veut bu bëgg nañ toog keneen ki fu mu toog. on est prêt à dire n'importe quoi. il faut il faut qu'on il faut éviter ça xam nga dabax dabax Malick yal ko. ah yéen tamit ñoom ngeen doon def mais non c'est-à-dire ah. quel soit l'opposant quel soit le moment. yéen ba ngeen nekkee opposition c'est pas normal c'est pas opposition bi leen la rek c'est et <laughs> n'a hmm. jamais cherché à diaboliser parce que quand les gens ont voulu dire que le fichier d'Abdoulaye Wade personne kenn mënu ko gagner à lui a laissé les gens parce qu'il savait que ces fichiers-là quelqu'un peut gagner parce que Ablaye gagné a gagné en deux mille avec ça donc il faut que nit ñi xam certain moment raison garder. xam ne lii mun na même si. maa ngi ci opposition mais mais président Sall daawul attaqué nguur le régime. de de il y a des formats d'attaque et des formats quand c'est pas par exemple oh, je prends le cas la justice mais les attaques que, tu entends. Mm mais quand ceux qui était avec Les gens attaquaient Abdou Diouf. Quand a Wade est venu, l'opposition attaquait et c'est la justice. Nous, on est venus, on, nous attaque. qu'est-ce que ça mm-hmm. que yi nii lu ñu yaakaar mm-hmm. munul am mm-hmm. c'est-à-dire que la séparation des pouvoirs am na sur le principe mais la collaboration des pouvoirs est indispensable sinon l'État devient inexistant il faut que nit ñi xam loolu et cette collaboration là ne signifie pas euh, obligatoirement une parce que les gens sont assu à tel ou tel. Mhm. parce que ñii dañu topp ou topp kii non. Mhm. mais il c'est des institutions qui doivent travailler ensemble s'ils ne travaillent pas ensemble l'État n'existe plus. Euh, Amady Dieng naka nga gisee <laughs> ñuy wax euh, par exemple euh, comme nuñ doon xeexee ba ñu daanee statut Faidherbe bu Saint-Louis ainsi de suite ak nee nañ rue yu nekk Sénégal tali boulevard yëpp lañ war a dindi tuddee ko ñun suñuy héros sénégalais wala africain au lieu que ñu siy bàyyi turu tubaab bi yow loo si xalaat. bon c'est relatif xam nga xam nga yaakaar naa ne man tout ça j'ai vécu ça j'ai vécu ça pour la simple et bonne raison que je me suis opposé euh, à l'âge de 13 ans. Mm-hmm. je me suis battu contre euh, Senghor euh, je me suis j'ai défendu euh, le Sénégal en tant que euh, pays indépendant j'ai je me suis battu pour que l'extérieur bañ bañu moom mais il y a aussi l'histoire la mémoire du Sénégal xam nga am lu nga xam ne da nga ko éliminer suba ëllëg suñu doom yi lu ñu xam lu amoon Sénégal je suis d'accord qu'il faudra revoir les choses yow nga ne daan nga ko xeex ah tey tey tey nga ne loo si xalaat. non non xeex bi na continuer dañ ko war a xeex mais ci xel yi lañ ko war a xeex ak ci comportement yi. yow ba c'est pas une lan nga daan xeex pour ñu dindi tur yi. non non c'est pas ça c'est pas non non c'est sur le principiel man laa doon xeex. Hmm. que ñun dañu war moom suñu bopp. les forme de moom suñu bopp c'est le plan économique sur le plan des des comportements sur le plan des des habitudes sur le plan euh, de l'enseignement ainsi de suite ainsi de suite dañuy jàngale nit ñi Sénégalais lu ñu moom. ba ba bañ ba jàngale n'importe quoi su dee dañu leen war a jàngale leneen non c'est pour seulement ñu retenir que lii mos na am te lii mos na am na lu muy gàllankoor ci suñu culture ak suñu existence mais c'est pas pour euh, d'abord cultiver la haine il faut éviter de cultiver la haine parce que aujourd'hui ci dëkk ci ci benn dëkk la ñu nekk adduna bi adduna ci benn dëkk lañu ñu nekk nous sommes dans un village planétaire donc il faut pas cultiver la haine faut éviter ça maintenant il faut cultiver la personnalité il faut cultiver ñun suñu suñu suñu jegewaay ak suñu culture ñu nekk ak accepter suñu culture vivre notre culture tout en respectant la culture des autres. parce que loolu nag pour commencer si mooy ñu dindi avenue yeeg kii yeeg. non je y a il je dis que il y a des xam ñoo nootoon Sénégal di ko noot sax ba léegi. nga xam nga euh, mun nañ ko def mais avec beaucoup de civilité. maanaam expliqué non non non ce que je dis civilité am na am na taxawaay bu ñu. d'accord ñu dindi ko non. il y a des choses qu'il faut enlever il faut il des choses mu xam ne ñu def nañu mais def lu ñu def baaxul lu ñu def baax teg di baaxul Sénégal je suis d'accord. comme lan. même mais bu ñu leen bu ñu leen dindee c'est pas pour les effacer. c'est pas pour les effacer peut-être il faut les amener ailleurs il faut les garder dans nos musées parce que suñu doom yi dañu war a mun a gis yooyu. Hmm. ñu laaj ñu lii lan la ñu leen nii lii kii nii la nii la nii la nii la nii la mais il faut pas les faire disparaître il faut les enlever voilà troisième mandat bu président Macky Sall bi ñuy laam-laam. mais moi je m'appelle pas Macky Sall. loo si xalaat. ma ne man je ne m'appelle pas Macky Sall. Hmm. troisième mandat il faut demander à Macky Sall. ah yow bi nga toogee fii c'est pas troisième mandat c'est une troisième candidature défendre lépp lu ah, non je défends non attends attends sa politique et tout. est-ce que Macky Sall a dit léegi troisième mandat ñëw nga ne doo si wax. non non est-ce qu'il a dit qu'il est candidat Sénégal yëpp di si wax. est-ce qu'il a dit qu'il est candidat. Hmm? est-ce qu'il a dit qu'il est candidat mais dama ne euh, éventuelle candidature. bu président Macky Sall yow loo si xalaat. du ma waxtaan ci éventualité. man dama waxtaan si le concret si le. si wala lim ne bu bu bu leen ci wax. moo tax non non c'est pas un problème c'est-à-dire que wax pourquoi pour et je suis d'accord avec lui quand il dit bu leen ci wax parce que l'affaire du du troisième can la troisième candidature n'intéresse que Macky Sall ça n'intéresse que lui. ah te pourtant bu sampee ndëndëm ngeen jàppale ko. yow laa ko yaa ko wax ça t'engage que toi. su sampee ndëndëm doo ko jàppale. ma ne yaa ko wax ça n'engage que toi ça n'engage que toi. moi j'ai pas à me par rapport quelque chose. maanaam deux mille vingt quatre ku ne man du ma samp non deux mille vingt quatre non ne ku ne man. sama dënd su ma sampee ndëndam yow. Amady Dieng di nga ko jàppale waaw wala la est question laa la posé. moi aussi je te pose une question est ce que moi. du ma du la question que tu me tu me pas une question d'actualité. non xam nga man damay poser une question si question qui existe. Amady Dieng man maa la invité. mais tu me poses man mais oui mais si tu me poses une question boo xam ne bu amul. mais mais ay ah. Ah ah. mm-hmm. sens. lu am mais troisième mandat actualité la moom la ñëpp di waxtaane non l'actualité c'est pas parce que ñu waxtaane benn affaire actualité la. y a aucun fait y a aucun fait mu xam ne dafa poser problème troisième aucun. mais ñu ngi koy waxtaan. mais si les gens sont libres on est en démocratie. et puis et puis dans deux ans dañuy dem. élection présidentielle il faut qu'on en parle. bakkan bakkan bakkan léegi waxatuma sax loo xalaat ci candidature euh, président Macky Sall mais bu sampee nëndam yow di nga ko défendre di nga ko jàppale wala doo ko jàppale. mais man xaaruma loolu. xaaro loolu maanaam xaaruma loolu. Amady yow tamit tontu ma ñu ñu avancé. non je ne ko jàpp waaw wala déet moo fi am je n'attends pas ça. non jarul sax ngay développer. nee waaw wala déet j'ai pas besoin de développer parce que c'est un sujet un. qui n'est pas mon sujet parce que c'est pas moi qui suis le candidat deux le problème ne se pose pas amutul. amul mais mais bi ñu wax fii ba léegi lu concerne Macky Sall la ñu wax. te yaa ngi tontu lu am lu am loo xam ne gis naa ko dégg naa ko jëf na gis naa gis naa ñu ko jëf. man du ma wax lu ñëwul. loolu kenn du ko ci mais bu sampee ndëndam doo ko doo ko doo ko jàppale comme ni nga ko jàppale woon 2012 2019. xam nga ñun dañu habitude am habitude ne. Mhm. à chaque situation concrète. Mhm. position concrète. Mhm. dara dana am dara war il faut que dara am pour nga am position mais dara amul ngay toog di ba man du ma du ma je suis pas ce genre de personne là laajal ku ma xam man du ma wax ci lu amul. donc doo wax ci troisième mandat. ma wax ci lu amul c'est pas seulement la du ma ci wax. Mm. waaw. c'est euh... comme c'est comme beneen problème nga wax ne Macky Sall bu defoon lii la mais non non c'est pas mon hmm. ah probabilité loo xam ni lu ma a nekk la. man je suis wax amoo si xalaat. man je suis un scientifique. Hmm. la si xalaat mathématicien nga. nga booy waxee probabilité tu ne peux calculer cette probabilité là. quelle la probabilité toi-même de prendre dans ta tête la probabilité. mathématicien da fi toog ah, en tant politicien. non non je suis entier moi. fu ma nekk. fii toog comme politicien. man fu ma je porte toutes les casquettes. je ne vais pas il y a pas de casquette que je déshabille. et je le reporte après non je suis je non non fii moom toogoo fi comme scientifique. tout ce que j'ai dit. je le si je devais dire ma génn ci notion scientifique toute ma vie ku ma xam. Mhm. man j'ai fait j'ai j'ai des analyses scientifiques j'ai des conceptions scientifiques du ma du ma laam laay man. Hmm. waaw laajal ñu ma xam. doo si wax daal. non parce que lu ma wax du amul. damay hmm. damay c'est ce qu'on appelle de de damay wax rek pour wax. Hmm. waaw parce que je peux aujourd'hui demain je change d'avis. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen sociale toute la ville en parle. wala kut kut les gens eh, eh, disent ce qui se voit que ñeme woo leen cee wax yéen. non pas un problème mm. problème d'abord qui m'intéresse. ah ne m'intéresse pas. Mm. c'est pas mon moi qui le troisième mandat le troisième mandat ne vous pas non ça ne le mandat ne m'intéresse pas. Eh, ce qui le mandat dans lequel aujourd'hui Macky Sall est en train a proposé un programme on l'a je fais tout pour l'aider da je pour jàppale ko pour que lu mu wax lu mu dëggal Sénégalais mu def ko le reste ne m'intéresse pas. léegi leneen ma la si xanaa di si tontu. Ah. troisième mandat en Afrique. le problème troisième mandat en Afrique. ce qui ont déjà fait. ay cas Condé affaire yow loolu tamit doo si c'est c'est pas mon problème. parce que Sénégal est-ce que yow ce que je ce sur pas d'accord. Hmm. c'est de faire un politique. et électorale pour gagner l'élection, même si c'est notre premier mandat. C'est ça, c'est sur que je suis pas d'accord. Transformer, ça veut dire euh, tripoter la Constitution pour se positionner. Mais c'est pas normal. c'est pas normal. Alpha Condé. pas normal. On ne pas une Constitution, une loi électorale pour pouvoir gagner une élection. Ça, je suis pas d'accord. Quel que soit le pays. Mm. quel que soit le pays. bis bu ko Macky eh, defee et demain quand Macky Sall fera tu verras ma position. ah, ah oui yàggatul de. non non je dis <laughs> quel que soit le pays où on le fait. je mhm. suis pas d'accord. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi sur seen émission sociale toute la ville en parle principe tey jii euh, Ndeye Comba Moreau dalal Amady Dia nekk directeur de l'agence des bâtiments et édifices publics président de la rencontre euh, des acteurs et mouvements pour euh, l'émergence ñu laajaat la naka nga gisee beneen kii boo xam ne léegi mi ngi jël ampleur commencé sax di xoqatal carrément li nga xamante ni mooy état wu Sénégal euh, di activiste yi wala activisme au Sénégal ñi nga xamante ni euh, ñi ngi def live ci réseaux sociaux yi di attaque ñi ngi def seen conférence de presse ñu ngi def ay marche ay sitting euh, di dénoncer lépp li nga xamante ni jàpp nañ ni mi ngi ci réew mi di dox te jaarul yoon ban jàng nga ci am yow nu ma gisee activiste yi waaw cest que xam nga Sabine euh, moi j'ai peur j'ai peur parce que xam nga politique. Mhm. dañ koy jàng. or depuis quelque temps depuis que grande idé idéologie yu yore woon Sénégal yoroon adduna bi jeex euh, nit ñi du ñu ñëw ci politique. Mhm. parce que dañu am ay lu ñu gëm. dañ ñëw ci politique parce que dañu am lu ñu wut. Mhm. et ça pose énormément de problème. loolu moo tax j'ai quand j'ai dit que j'ai peur parce que ci relève politique ba ma gis. Sénégal bu ñu moytul musiba la ñu am. ndax parce que euh, ils ne sont pas dans la mesure dans ce qu'ils font euh, ensuite euh, jànguñu jànguñu politique xamuñu politique. Mhm. dangay xëy rek yow rek parce que on t'a blessé parce que d'accord ak nit nga dugg ci politique. or la politique c'est une science la politique dañ koy jàng. Mhm. loolu moo tax il y a beaucoup de yoo xam ne euh, bu ñu moytu mun nañ indil musiba. Mhm. c'est pourquoi j'appelle à la à la retenue la raison xam nga l'activisme. le fait d'être activiste avant ñun bu ñu doon def politique jàng politique presque suñuy tudd ñu ñu tudd ñu doon tudd trotskistes yi ñoo doon les activistes mm. parce que ñoom gëmuñu woon organisation bu ñu gëmoon mooy nit mun na defar histoire mm-hmm. et aujourd'hui activistes yi presque loolu la mm-hmm. loolu mooy seen liggéey mm-hmm. c'est-à-dire que euh, ñoom day yaakaar ne defar réew ou bien s'opposer c'est dem rek di critiquer di di di critiquer on il dit ça alerter alerter c'est bien d'alerter oui mais alerter il faut faire une proposition alternative et proposition alternative fu mu mën a am mooy quand il y a un groupe qui est derrière qui le porte mais quand un individu tu crois que tu peux amener tu peux tu peux éveiller des consciences. comme par exemple mais Guy Marius Sagna dafa am mouvement du benn individu. ma ne la ma personne. c'est un mouvement on ah. c'est des activistes comme lui qui ils leur activité mais ils n'ont rien. ils n'ont rien. ils n'ont rien ça veut dire cest parti politique c'est un programme. Mm. c'est pas les individus c'est un programme politique c'est une vision c'est une stratégie pexe la boo xam ne dafa taxaw ci gis-gis taxaw ci programme man bu ma yore réew mi nii lay def nii laay def nii laay def mu leer nañ samay stratégie ak sama doxal nii la sa à dire vraiment askan. mu munoo ne da ngay jiite da ngay bëgg a suba jiite askan nga lekk nga ko bett nga yow rek wax benn affaire comme ça non. il faut que boo waxee dara ah ñu ne ah way kii de moom lu mu wax dëgg la parce que waxoon na ko parce que gisoon na ko ci ji fësoon na ci gis-gisam. Mm. fësoon na ci programme am. gisoon na ko ci stratégie am mais tous les jours da ngay yeew wax lu la neex def lu la neex. ça ne peut pas marcher tuddee sa bopp activiste. <laughs> tuddee sa bopp merci bu la moom tuddee sa bopp. <laughs> am na ñu ne sax liggéey bu bees la. voilà liggéey bu bees alors donc. Mm-hmm. yaakaar naa il faut ñu qu'on fasse très attention dans ce pays mm-hmm. xam nga nos économies. dañu mm-hmm. fragile. euh, notre unité nationale. ñu ngi sant yàlla nag Sénégal. Mm-hmm. nous avons une nation euh, comme président comme le président le dit. Mm-hmm. man lu ma bëggal Sénégal. Mm-hmm. mooy une nation prospère. nation boo xam ne am na xom koom-koom. mais aussi une nation une nation solidaire. ñoo xam ne ku nekk daka jàpp keneen ki ko nawlam xam ne ñun ñoo bokk affaire bi bu yàqu ñun ñoo yàqal. voilà une vision forte bu du président la République mais yemul foofu. dafa dem ba man pour am yooyu ci Sénégal yaakaar naa il faut foo ñu yëkkati. Euh, formation ah, yi ah ba léegi askan wi lott nañ de amadi Dieng. xam nga lottu ak yaa ngi xalamal Macky Sall mais boobu ba léegi ñu askan wi lott nañu dee nañu waaw la vie coûte excessivement cher dafa métti c'est pas ça le problème. la vie coûte excessivement cher. xam nga quand tu vas chez médecin waaw. la santé coûte excessivement cher non oui man analyse lay def. waaw nga ça et je d'accord avec toi. c'est général. kenn du ko wér nga ka boo mm. demee boo demee chez un médecin. Mm-hmm. c'est parce que tu es malade. bien sûr. mais on te dit quoi on mm-hmm. c'est pas a fait un que tu es guéri. analyse radio ainsi de a fait on te donne un traitement. Mm-hmm. c'est pas que jox nañu le traitement bi le jour on t'a donné il est guéri. il y a il y a un protocole il y a am na ay délais. Mhm. donc c' ça la vie cest dire que le protocole est écrit seulement et a été faite que tes douleurs sont sont non on va vivre nos douleurs on va vivre nos difficultés jusqu'au moment où. loolu je souligne c' extrêmement important pour Sénégalais yi xam ko. Mhm. xam nga yorin réew. c' pas le président Macky Sall mi ñun ñëpp la ku nekk tout à l'heure am na yu wax ay détournement ay comportements des leaders politiques les responsables politiques mais aussi des responsables dans l'administration qui sont même pas politiques et moi je suis aujourd'hui convaincu moi je suis dans l'administration il y a pas longtemps mhm. parce que moi j'étais dans le privé je suis venu à l'administration en 2012 avec Macky Sall mais le constat j'ai fait si on parle de détournement et de corruption c'est l'administration ah parce que ni Et c'est ça, en vérité, notre difficulté. Notre difficulté, c'est qu'il faut réformer notre administration. Mmh. Tant ne réformera pas notre administration, nous ne réglerons pas un certain ensemble de Moi, je pense que le vrai problème, c'est notre administration. voilà une minute Fouta euh, Tampi oui ou non bala ñuy jàll ci beneen loi bu am solo bi. non c'est pas euh, c'est pas c'est pas Fouta Tampi. c'est pas Fouta seulement qui est Tampi c'est le Sénégal et le monde. Mhm. xam nga j'ai l'habitude après la mhm. bu bon bi. oui lu ma wonee mm-hmm. askan wi askan mm-hmm. adduna bi mm-hmm. c'est que kenn mëntu dund ci ci ci ci des ci moom rek xala xalaatul keneen xalaatul dara nous sommes liés par la par la par par, par la vie euh, individualisme ça ne peut plus gouverner le monde mun nañ jéem ils peuvent mun nañ def lu la neex mais ça ne va jamais marcher il faut que ñu ñuy duggante il faut que ñu ñuy jàppalante je pense que solidarité boobu loolu ñu war la ñu war a développé. moi je reformule ma question est-ce que d'accord nga ni man attends suis socialiste moi je suis pas un libéral. Mm-hmm. toute ma vie j'ai travaillé dans cet esprit-là. il faut que nit ñi soient au premier plan par rapport à tout mais en même temps ce qu'on doit lu ñu war réussir lu ñu war a am nit ñi aussi ñoo war a il faudrait qu'on croie au travail. quelle que soit échelle fu ñu nekk. Mhm. il faut ñu gën ne richesse dëkk bi ñu ñoo koy liggéey. ah nee nañ xaalis kenn dootu ko liggéey dañ koy lijjanti. mais loolu nag mooy fen bi. ndax politiciens yi fii dañuy ñëw loolu mooy fen bi loolu mooy tax duñu dem fen sax duñ ko am. loolu moo tax ah, duñu dem fen waaw ñu nommé le cinq ans rek nga nekk milliardaire. loolu moo tax duñu dem fen. voilà alal. Mhm. liggéey moo koy moo koy meññ. ci liggéey lañu am lépp. waa léegi euh, temps bi bareetu te foog ñu wax ci loi bi dama ne mhm. yow d'accord nga ni waa mouvement Fouta Tampi li ñuy wax dëgg la maanaam président Macky Sall euh, waa Fouta dañ ko ah, defal foofu titre foncier ba pare mu fàtte waa Fouta carrément fuuta lottu na dee na ci côté yëpp infrastructure tout xam nga waaw wala de ñu dem ci loi non moi je réponds pas par waaw ou déet ça c'est pas ma ah, personne ah xanaa doo scientifique non non non non non scientifique on répond pas par waaw ou déet c'est pas la réponse oui non. Mhm. c'est quand on voit aux enfants des examens on dit dit oui ou non. Mhm. c'est pas scientifique un scientifique c'est un raisonnement c'est-à-dire que moi Fouta tant pis on pouvait dire Dakar tant pis on pouvait dire euh, Sédhiou tant pis c'est-à-dire que pourquoi parce que tout simplement lu ñu war am. conditions yi war a nekk amatuñ. amatuñ ko amuñu ko voilà pas amatuñ ko amuñu ko ah. des choses qui marchent il des choses qui ont été réalisées. Hmm. peut-être on n'a même pas réalisé la moitié de selon les besoins et même bu ñu réalisé tout. et pourtant vous avez deux mandats ah. même bu ñu amee cinquante mandats. <laughs> les Sénégalais les toujours des besoins. loolu mënul nekk nga nekk ci position A. Mhm. nga ne alhamdulilah rabbil alamin ne signifie pas que tu es rassasié. tu vas vouloir être au mis encore tu vas voir la la la. mais d'accord nañ si mais Amady da ngeen yéex c'est moo kan moo yore lu gaaw. président moo yore lu gaaw. lottu nañ. ma ne gisoo bi mu naan day régler problème mu yi. ñu ne ko dem ba sa deuxième mandat di a jeex jeunes yi dee lottu dem dee si géej nga ne da ngay régler le problème de l'emploi des jeunes. n'a jamais. dafa yéex musul fàtte xale yi. ah regarde toutes les institutions. xale yi musu ko. te xale yi dugg si géej gi dee kenn eh, xamu ñaata fi la fi la ko fekkee fii la ko fekkee le Sénégalais a commencé à voyager mais c'est encore plus catastrophique non non non avec non, le régime de non non non non non non le relais des réseaux sociaux qui fout du réseaux sociaux loolu moom réalité la mais mais c'est la c'est la réalité mais la c'est quoi loolu mais souffrance des jeunes loolu la ñëpp di dund mais est-ce que réalité boobu amul woon ah, amul amoon na mais non non c'est parce ah. que tu es mieux informé maintenant c'est pas l'information à réel mais la vie coûte plus cher <laughs> la vie quelle vie. Hmm? quelle vie que ah non ah je suis pas d'accord avec toi je ne suis pas du tout avec toi courant ndox location faju lépp dafa gën a cher. non non non non non non si tu me dis. waaw que les depuis que cette maladie est venue je suis d'accord avec toi. mais il faut pas quand Macky Sall est venu sa première réaction. sa première action wàññi woon na ko waaye lépp la yëgal. non moom du moom du yëgal dara c' est la loi du marché xam nga vous avez des. c' est la loi du marché mais mais mais mais Amady foog ñu taxaw foofu. ah oui c' est la loi du marché parce que fii la taxaw si si. c' est la loi du marché. c' est la loi du marché c' est la fluctuation. mais mu nekk si campagne présidentielle. oui mu ne su toogee. dafay euh, wàññi dundu gu cher bi. moo ko wax mais wàññi na ko. waaw et après. nga ne c' est la loi du marché. mais wàññi na ko. mais mais après yokkaar na mais le marché évolue moi j'avais un salaire le salaire que j'avais je l'ai plus j'ai un Amady Dieng mënoo nekk mathématicien wax léegi nii lii wax après nga wax le contraire c'est parce que je suis mathématicien que je te dis la loi du marché c'est une loi régulière maintenant l'équilibre c'est c'est là où l'État intervient avec ses ses un certain ensemble d'interventions de pour baisser pour réguler le marché mais le marché il est là personne n'y peut rien léegi loi bi. celui qui vend son il dit que moi man je ne le vends plus à mille francs je le vends à deux mille francs le qu'est-ce que tu peux. Hmm. ce que tu peux c'est subventionné. te pourtant Macky moo ne mu yéeg wàññi ko. non non écoute moi wàññi bi am na am na am na sens am na en sens il lui dit wàññi c'est le mot. mais comme ni mécanisme bi lan la. c'est la subvention. et subvention bi xaalis nguur gi la. du seet ton argent. kon amatul lu donc moo tax mu yéeg yokkaat. parce que parce que parce que la situation économique. waaw ñu juste cinq minutes moo ñu dese foog ñu wax ci euh, loi bi ñu voté il y a quelques jours assemblée nationale mu jul tole bu rëy rëy coow li bari nga gis ni sax démb euh, opposant bi xoqatal njiitu réew mi ki nga xamante ni Macky Sall moom rek la ragal di Ousmane Sonko euh, génn nee na loi bi xam nga Tony Blair kii mi ngi ci biir ainsi de suite ban jàngal nga am ci loi bi. ah nee nañ président Macky Sonko rek la ragal. c'est ce que c'est ce que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. waaw ça c'est des questions qu'il faut demander à Macky Sall. yéen Sonko terewulee na nelaw je ne dors pas avec man je n'ai je n'ai jamais voulu parler de Sonko. parce que mm. j'ai estimé qu'on a qu'on a qu'on a fait Sonko. Mm-hmm. Sonko a été fait de toutes pièces. Sonko a été fait toutes pièces. yéen a ko fabriqué par vous les journalistes. non par euh, oui oui oui c'est pas vous les journalistes. wala wala wala ñi ko rajo ñoo ñoo defar Sonko. non non non non il y a tout ça il y a tout ça il y a le le nguur gi aussi am na mu ci def. il y a vous les journalistes parce que vous voulez du sensationnel vous voulez. Ah, euh, non les effets les fake news. non duñu responsable ah, non non non écoute-moi. su ñëwee ñu tàllal ko micro non non vous ta mais euh, lu ngeen micro. mais vous allez au-delà vous le mettez en scène cest je pense que vous êtes libre c'est un choix que vous avez fait. Mm. mais vous avez une responsabilité on mettait aussi en scène. votre président vous ah. dans ce pays-là. Mm-hmm. il faut que nit ñi xam lu ñuy def. c'est-à-dire que c'est qui se passe dans ce pays là inquiétant j'ai tout le temps à l'entame de mes propos lu ma bu ma wax loolu wax parce que gisuma fii lu ma gis fii du ay politiciens léegi loi bi des activistes mm-hmm. non ce sont des activistes et c'est ça, le danger mm-hmm. ci wax ak seen jëfin gis aucune analyse mm-hmm. c'est des affirmations c'est des slogans on ne peut pas gérer un pays avec des schémas et des slogans cette loi là on parle du terrorisme chacun a sa compréhension de ce que c'est le terrorisme. Hmm. avant que la notion du terrorisme international du terrorisme islamique ñëw. mais am na acte yu ko doon posé dañu ne hmm. tu toi tu tu agis comme un terroriste tu hmm. a un sens dans le lexique euh, français. donc la question est de savoir est-ce que nit ñi ils ont une bonne compréhension du terrorisme dont on parle. mais tamit. mais moi je ne parle euh... pas du terrorisme de façon générale. mais les gens de quoi quand ils disent quand ñu bu ñu leen waxee la violence doit être punie xanaa ils sont naturellement violents ils sont nature violents par nature ils ne peuvent rien faire que dans la violence quand ils parlent ils sont violents quand ils posent un acte ils sont violents même quand ils doivent faire une bonne chose ils sont violents mais est-ce que ce pays-là a besoin de ça pourquoi refuser pourquoi ne pas rejeter ensemble la violence on est libre en politique c'est la c'est le choc des idées c'est les idées que les étudiants les populations doivent oui, regarder. loi bi dara nekk jógul pour nasaxal. Euh, mais jamais c'est-à-dire une loi mais la loi elle était là elle était là elle était là depuis 2007. c'est une loi d'Ablaye Wade. elle n'a fait qu'être améliorée en 2016 puis être améliorée en 2021 parce que tout simplement sur le plan international on a signé des engagements et il y a des gens qui disent on s'en on s'en fout. de ces engagements de ces engagements mais c'est malheureux quand on ne sait pas comment on gère une république quand on sait qu'on sait comment on, comment on gère un État. vous demandez à Macky Sall de faire ceci, Mais tout ce qu'on fait, c'est pas nous, qui le travaillons. Nous allons emprunter. Peut-être nous allons payer, mais c'est pas nous. Et pour pouvoir être dans le cercle des amis de ceux qui donnent l'argent, mais il faut, il faut être dans les règles. Il faut respecter les règles. Cette loi-là, elle était Il y a beaucoup, mais on n'a jamais puni quelqu'un à de cette médiocre. Euh, très médiocre Très médiocre. à, ah tout point de vue. à il pense que en politique il faut passer tout son temps à créer des oppositions et des adversités non. ah yéen noonu ngeen doon def. ba non non non non non non. fii Macky Sall Macky Sall ak wuy ma Macky Sall chaque jour ñu yóbbu ko vaar. def actuellement. non non non xam c'est vous qui pensez comme ça. bi mu nekkee ci opposition bi li mu doon c'est vous qui pensez comme ça. chaque jour ñu yóbbu ko vaar. non non c'est vous qui pensez comme Euh, non, c'est un, constat général. ce constat. il n'y a que l'opposition qui constate ça. Quand vous êtes dans votre rôle, moi je ne vous refuse pas vous opposer. Mais il y a une style mm on s'oppose. Il y a une éthique quand on s'oppose. Il y a une personnalité qu'il faut dégager mm on s'oppose. Parce que nous, c'est eux qui vont te donner le pouvoir. Ce pas ta parole là. Ce pas ton discours. Ce pas ta frénésie. Ce pas C'est comme les événements du mois de mars. On pense c'est Ousmane Sonko qui a sorti les gens, mais c'est une contingence de situations, c'est une rencontre de plusieurs situations qui a créé cette situation. Et par pour laquelle le pouvoir a des responsabilités. je l'ai toujours dit. Il faut qu'on sache raison garder quand on parle de la République, quand on parle de l'État du Sénégal. Mhm. Parce que état bi mhm. que lu nga que la réalité elle est là. les reste bi la ñuy dugg gudd dund il faut faire des résultats qui transforment fondamentalement leur niveau de vie. dernière question juste une deux minutes temps bi jeex na tàkk euh, di coowal homosexualité mu nekk euh, sujet boo xamante ni depuis l'élection du président Sall toujours dafay nekk en vogue l'homosexualité toujours en vogue toujours en vogue tout le temps mi ngi occupé euh, actualité bi coow li bari na gis nga euh, euh, marche yi ñu fi amal sitting yi ñu fi amal gis nga ampleur bi muy am ci réseaux sociaux yi la question de l'homosexualité ban lan mooy si sa xalaat yaakaar naa la question de l'homosexualité c'est toujours posée au Sénégal ñun tam góor mais instant bi la gën a mooy ma tax rek cest si c'était nouveau mmh. Sénégal moom affaire affaire góor jigéen yàgg na Euh, la question elle a évolué je d'accord avec toi. Mhm. que am na nu mu mel tey dafa garaaw loolu moo tax les positions de principe du président Macky Sall très claires. Mhm. cest dire que nit ñi ku nekk mun na mel nu lu neex parce que nous sommes en dem en liberté aussi mais moom tant qu'il est la cette cette loi là c'est une loi ne passera pas pour valider la l'homosexualité mais peut-être valider wuñ ko mais est que tamit euh, nekkuñ. di defar les conditions pour ça. pourquoi. waaw pourquoi defar les conditions il y a pas de condition à ça non parce que am na question yoo xam ne nit yi ñu ngi koy laaj nguur gi nanguwu ko leeral. ban question. tey jii problème mu genre ça pose problème. non même éducation xale yi dem nañ ba bëgg fa dugal wàllum ngóor jigéen. xam xam nga non non. tey jii ñu ngi leen poser question. ministère de la femme de la famille et du genre genre bañ ca yokk lu ko waral. boobu ba léegi kenn taxawul tontu leeral xam nga xam nga les. xam nga les interprétations sont diverses xam nga c'est pourquoi il faut qu'on fasse très attention sinon on va brûler ce pays là. ah ouais? c'est oui, naka oui oui parce que quand on veut chacun veut avoir un sens d'un mot sa sa propre interprétation du mot ça devient catastrophique mais yow ban jàng nga am si c'est vrai góor jigéen yàgg na fi yàgg na am kenn weddiwu ko mais ban jàngan nga am si depuis président Macky Sall lu toog euh, problème mu homosexualité dafay nekk toujours en vogue dafay nekk au cœur de l'actualité pour yow lan moo ko waral c'est-à-dire xam ngeen toujours au cœur de l'actualité ko waral moo di mm. Sénégal n'est pas un petit pays surtout en internet ñu ngi ko gisee à travers le monde. Mhm. chacun voudrait que le Sénégal ressemble à certaines choses ressemble à jo am benn image. Mhm. mais ñu nga xam ne ñoo jiiti Sénégal ñooñu dañuy ne Sénégal day nekk lu mu war a nekk des ci lu mu war a des. kenn du ko dugal ci nga xam ne ko nekku ci culture am nekku ci euh, ngëm-ngëm à population. Hmm. c' une position de principe. mais tey nous sommes dans un village planétaire. ci benn mais yow gisoon dañu bëgg a imposer carrément. pour ñu daganal homosexualité. non non non non non non xam toi tu le sais tu es tu es dans la communication les réseaux d' influence sont libres sont libres c' est que c' pas l' état a organisé tu vas dans le net tu vas dans le euh, Facebook mais c' est tous les jours. Est-ce que c'est Macky Sall qui a dit il faut faire ceci ou non c'est une réalité que nous vivons dans ce monde dara du xew Amérique fekk yëg suñu fi dara du fe xew xew France les mêmes batailles xuloo yu fi nekk xeex bu fi nekk pour homosexuel moo fi moo fi moo fi si keneen dugg si xale yi dugg si kenn mënu si dara maintenant c'est à nous Sénégalais c'est au peuple sénégalais de s'organiser mm. c'est au peuple sénégalais de résister c'est au peuple sénégalais de refuser et alhamdulillahi Sénégal am nañu Euh, ay ay ay ay ay ay ay ay ancrage boo xam ne buñ ci jàppee buñ ci desee avec nos nos nos nos illustres marabouts que nous qui ont traversé le Sénégal buñ ci jàppee kenn mënuñ ci dugal loolu mais aujourd'hui looy gis xale da nga yaakaar ne xale yu fekk dans les def différents lieux di fekk leen dans ces situations c'est ma moo leen wax ne nekk nekk homosexuel non il faut que ñu dal mm-hmm. ànd ak suñu sago fexe avec pour ce qui est c'est ce que nous avons comme comme comme comme comme facteur positif yu baax yoo xam ne ay suñu yar yar yar yar yar ak teggin bu ñu am ak gëm yàlla gëm lu yàlla yàlla yàlla bëgg. Mm-hmm. ñu fexe pour affaire boobu bañ a dugg. parce que mm-hmm. parce que Macky Sall mu ngi fii suba dana dem de. Mm-hmm. keneen ñëw force bu mu am pour résister pour refuser keneen mun am pour mun a ñëw bañ ko am de te loolu musiba la. yaakaar naa ni il faut que ah, il faut fu ñu war a dugg rek lu ñu war a wax rek nañu nañ ci ànd ak discernement. Mm-hmm. xam nga la saqina la dis le discernement. Mm-hmm. c'est très important. voilà temps bi dab nañu. bien sûr <laughs> euh, ñu bàyyi Amady Dieng <laughs> euh, nga tàggatoo ma lay tooñ c'est mon oncle parce que sama yaay Dieng la sant ma bàyyi la nga tàggoo ko auditeurs yi. voilà Sabine vraiment merci beaucoup. ça a mm-hmm. été une une émission émission bu baax la. émission mu xam ne question yi nga posé aussi question am solo la. fu may fu may jeexal rek moo di je reviens un peu sur l'agence wax ne ñun euh, nguur mooy teg agence. des constructions et bâtiments édifices publics yaakaar naa ne ñun ay ouvrier lañu te askan wi la ñuy liggéeyal structure état yi la ñuy liggéeyal. Mhm. Euh, nañu xam ne peut-être boo amoon difficulté difficulté yi jeex na euh, pare nañu euh, liggéeyal ñëpp te tekku si yoon te respecter de yi surtout que tey am nañu bureau d'étude boo xam ne étude technique étude environnementale étude d'impact yëpp mun nañ ko def ci service bi ensuite am nañu un une cellule de communication partenariat communication et relations publiques loolu lépp surtout diggante yi donc nous les appelons nous les invitons à venir avec nous dans ce combat yoo xam ne c'est un combat de la République d'ailleurs depuis le 1er juin l'agence a 10 ans et nous allons la fêter le juit fi juillet bi à Radisson incha allah Essa Bine tu seras <laughs> merci beaucoup mon oncle Amady Dieng directeur de l'agence des bâtiments et édifices publics président de la rencontre des euh, acteurs et mouvements pour l'émergence ñu koy remercier ci disponibilité bu baax a baax di remercier Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi ak yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel mën ngeen dégluwaat émission bi ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu site internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf.